yéen a ngay gis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 d' accord non non non bëgguma loolu. xooloo xooloo ba pare. non non en fait non non man dana li ma yor xooloo. xooloo non am na problème parce que yaa ngi may jox kii bi ma ne la yë. xaaral xam naa mi ngi si oto bi. mel ni lii moom c' est la première fois mu am ci commune. non non yaakaaruma ko de génne naa ko. saagi ba xam. génne naa ko ah non non. moom bu may bu may jox caméra la ma jox. waaw joo joo ñu xool. ah nit leen rek xool ndànk comme ñun ñëpp. sama saak. te te te.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 Donc vous entendez les, les grenades lacrymogènes Ça ne s'est jamais produit ici à Taïba Les populations sont là complètement franches. Mais lépp lu ñu def Comment pourquoi gazer des gens qui battent paisiblement à leurs occupations Pourquoi la situation est ainsi. On est en train de de vraiment une situation d'injustice. Le cortège du président Ousmane Sonko est bloqué ici à Taïba. Voilà. ñëw oui. dama ko demee dama si ko demee mais. bii nag normal bi ñu commencé daw ma ne leen forcé leen ngeen jàll waaye kenn nag mun jàll. na ñëw na ñëw na ñëw. waaw tey dañuy ñëw.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 ngeen ko lacrymogène yaa ngi nii ci nemmeeku tour kese ñi ngi nii gazé nañ fii ñi ngi de des grenades lacrymogènes sur les populations nee nañ na na caravane bi rebroussé chemin